وصلواته مع السلام على الرسول الكاشف الظلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu ñu yóbba gën a rafet te gën a sell te gën a matale diggante jullit ak moroomam noo ngi ñaan sun boroom mu ubbi sunuy xel def ci xalaat yu dëppoo aku bëggam ubbi sunuy xol tabbal ci ak sopp ko mokkub yonenteem sayyidul awwalina wal axirin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonenteem bi nga xam ne ku mu bind ak lu mu bind moo tax yonente bi nga xam ne ku ko sopp yàlla sopp la ku ko màggal yàlla def ñépp màggal la ku ko topp dootoo réer ku ko roy àgg ca yàlla subhaanahu wa taala am ngërëmam noo ngi ñaan ci daraje jëmm ju tedd jooji sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ñu ñuy ay jaamam yu ko ragal lool te yaakaar ko lool teg ñu ci soraatal mustaqim te saxal ci sunuy tànk dëpp dëppale sun lépp ak sun sunnas Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam te nangul nu ko noo ngi koy ñaan moom subhaanahu wa taala ci daraje Mustafa sallallahu alayhi wa mu jéggal bépp bàkkaar bu mas a def buñ xam ak buñ xamut buñ yëg ak buñ yëgut buñ tay ak buñ tayut buñ def tey ak buñ defagut ñàkk matale àq yi dox diggante jaam bi ak boroomam wala diggante jaam bi ak moroomam day tënk jaam bi ba du àgg ci yàlla di ub bunti yiwam di ko tabbal sawara buñ ko ko jéggalu moy gi ngay mooy sun borom subhanahu wa taala ay bàkkaar la yoo xam ne bu la ko jéggalut faw ñu fóot la ak i natt yu doy war fii ci àdduna walla ñu fóot la ak sawara ëllëg ngir aljana kenn du fa dugg ak i taq-taq tooñ gi jaam tooñ gi jaam bi di tooñ moroomum jaamam nag bu ko ko jéggalut ëllëg faw mu fay ko ko te mën naa fay àq yim yoreel jaam ñi ba deseetul wenn yiw wu koy tàbbal àjjana ñu far tàbbal ko sawar wala ayaazu billah looloo tax maa ngi sàkku seen njëggal di sàkku tamit ci yéen ngeen ñaanal ma njëggalal suñu borom tabaraka wa ak yërmandeem bokk yi ëllëg di yowmal xiyam la fay xew ci njàqare akum tiit metti na tar na tiis na روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خوفني جبريل عليه السلام من أهوال يوم القيامة حتى أبكاني فقلت له حبيبي جبريل أليس قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فقال يا محمد لتشاهدن من الأهوال يوم القيامة ما ينسيك المعذرة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت دموعه لحيته سيدنا محمد nee na Seydina Jibril alayhi salaam dafa ñëw di ko wax mbir mu tiis yi xew bés penc ba muy jooy jooy yu metti ba sikkinam ba tooy xëpp ak i ronkoñ sallallahu alayhi wa ne Jibril ndax sunu borom néew ma woon jéggal naa la bàkkaar boo mas def ak boo defagul mooy inna fataxnaa laka fatxan mubiinan liyaxfira laka allahu ma taqaddama min danbika wa ma taaxar sayyidina jibril alayhi salaam ne ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga fa jàkkaarloog yuy xew ci ay tartar ak ay tiis yu metti ba jéggi dayo ba dina la fàttaloo njéggal gi la sun borom jéggal ba foofu la toll sallallahu taala alayhi wa sallam ba mënta téye ay ronkoñam kon xaw ma nun jaam yu xeebu yi nun war a def te moom aljanaam leer na ko nàññ leer na ko tamit ne ku mucc ci sawar ci darajaam nga mucce ku tabbi aljana ci dara darajaam nga ko defe ku topp seytaane dëkke mooy yàlla dëkke mooy yàlla suñ borom subhanahu wa war a def bu boobaa ki bàyyi dëgg toppug neen nu war a def bu booba ki sàggane jaamu yàlla doyadal sharia nu mu war a def bu boobaa kii ràmbaaj di yàq der di tasug mbokk nu mu war a def bu booba ki dëkkee lekk alali jàmbur di dund ci kaw nit ñi ci lu seen xol seddu te faaliwul nu mu war a def bu boobaa ki yërëmul mbindeef yi di leen doyadal di leen toroxal lu mu war a def bu boobaa kon lii lu mat a bàyyi xel la te kenn mënta teemu xew ndax yàlla moo ko wax mbokk yi tukki bi sori na yoon wi raglu na yóbbal bi néew na départ bi jege na te kenn mënta ñàkk a dem te ku dem doo koy delsi waaj jot na kon nanu sangu ba set ci sunuy ñaaw teefi biir ak bitti sol yére yu yiwe te rafet gëttoo xet gu neex faggu yóbbal bu doy wammatu ci yoon wu leer te amul pakk rab du la dogale say-say du la ñeme yi yépp nag nu ñu koy mane dara gënu cee gaaw alsalaatu ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam muy julli ci sunu sang bu tedd ba ki gënal sunu borom ci lum bind lu mu bind moo tax al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam loo soxla ci àddina ak alaaxira gee ñu jëm yoonu solaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën a gaaw dañu leen leeral ci kanam li tax nu wax loolu ci ay tegtal yu wér yu bàyyikoo ci sayyiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yu bàyyi ko ci cheikhuna alxadim radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi yu bayi ko ci ay awliyaau ak gaayi yàlla yu baax ngir xemmeem loo leen ko ak ragal loo leen ñàkk fonk salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam alsalaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam nag bari na ay xeet lool maanaam ay tëggiin yu wuute am na ñu wax ne mat na ñeenti junniy xeet am na ñu ne fukki junni ak ñaar boo demee ci téere bu ñuy wax afdalu salawaati ala sayidi saadaati bu yusufa ibnu ismail da danga fa fekk wax ji da ko fekk timit ci téere bu ñuy wax xaziinatul asraar ba tax na dinañ ci indi yenn rekk yu jàppandi te dell ak njariñ indi tamit lenn ci njariñ yoo yi ñu wax ku ci xóotal ab gëstoom nag yàlla mën na ko ci xamal lu nu ëmb waaye li am solo rekk mooy lu nu ci mën a xam lu mu tuuti tuuti nanu ko jàpp te saxal ko kon dina faj sunuy aajo tey ak ëllëg te bi gën a tuuti ci aajo yi salaatu ala nabi sallallahu taala wa sallam di faj mooy mucc ci sawara sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man salla alayya fi kulli yawmin miata marratin qada allahu lahu miata xaajatin aysaruha itquhu min annaar ku julli ci man bés bu set téeméeri yoon yàlla dina ko fajal téeméeri aajo ba ca gën a yomb ci aajo yooyu muy faj mooy goreel ko ci sawara maanaam xaraamal yaramam sawara te إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الذي يدوم عليه صاحبه jëf ji gënal sun borom ci jëf yi mooy jëf ji borom saxal sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax moo waxaat ne ahabul amali ila allahi taala maa diima alayhi wa in qalla jëf ji gënal sun borom mooy jëf ji sax doonte lu néew la jëf ju baax joo mën a def lu mu tuuti tuuti da nga way ci dàkk sax ci bañ ko bàyyi mukk moo gën fopp jëf ju rëy boo sóobu te boo doxalee tuuti rek dal di yokkat tàyyi ci dal di koy bàyyi ni nu la mën a misaalee loolu rekk mooy buy gu rëy goo war a daaneel boo xëyee ne balaa ngoona dinaa ko tëral mën nga caa jële tawat te du daanu mu saw simmi ñaw ñaw waaye boo doon def bés bu set nga dóor wenn dóor rekk sax te way dàkk ci foo dóor bu ëllëgee nga dóoraat fa lu yàgg-yàgg dina masa daan ndax dóor wu ne dina am lum xobbee ca garab bi te doo daggale doo tooy doo sol maneen misaal mi mooy boo doon gasub teen yàkkamtee jot ndox boo gasee ba sonn rekk ne ba ma dalee gas ba léegi jotuma ndox xëy na fii ndox mi dafa sori naa xoolaat faneen xamal ne danga nara bari pax te doo am ndox waaye boo doon wàqe lu toll ne benn peel te way dàq ci foo wàqee bu ëllëgee nga wàqewaat fa lu yàgg-yàgg di am ndox ci menn pax kon mbokk mi looy mën a def ci lu baax nanga ko saxal rawatin rawatina alsalaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam kon lii moo doonoon muqaddima bi maanaam introduction bi ñu dugg ci waxtaan wi kon luñ ci mën a xam ci salaatu ala nabi muy gi ci gën a gàtt muy sallallahu ala muhammadin ba ci gë ci gën a gudd loo ci mën a jàpp rekk na ko saxal lu lim ba néew néew na nga ko saxal ndax la cay balle ci njariñ kenn xamut lu mu toll te amul lenn lu mu mel lu ñuy bale ay njariñ